boo fi teewee day wane ni du ñàkk am na relation yoo xam ne seetlu nga ko ak ci ah, parce que Papa Gaston ñëpp la fi nekk xeebul kenn Papa tey boo nekkee mag xeeboo kenn yàlla sa bii la lay fayee bés bii mën tawee say say say doom say xaritu doom say mbokk say am di jàmm ñëpp ñëw teewal la kër gi mooy këru dëgg fii mu tëdd nii mooy dëgg fii mu dëgg fii mu tëdd nii non fii mooy dëgg moo tax ñu bari war nañoo xolaat seen bopp ñu bari war nañoo xolaat di xam ne àddina du kër lii lay kër caatin ba bëgg a soxla nit ku baax ba ma sama sama yoon bi passé sama yoon bi passé billahi moo booleel koo wutal mu ne man dama lay invité nga ñëw añee cub kañ ma lay yëpp barke salaatu fatiha suñu suñu déggante matu matu 15 jours. kon amoon ngeen ay relation yu particulière waaw sama sama penn sama dig sama ànd matu 15 jours. billaahi bari wallaahi barke alquraan karim billaahi wallaahi. xam nga nit bu mel ne noonu danañu di waxtaan normal barke alquraan karim. lu waraloon seen relation yéen ñaar parce que xeebu kenn jàppee wuñu comme nit ni ñu jàppee dama jàppee comme ay doom jàppee ñu nit ñu baax. ay nit bu baaxee day bëgg moom képp bu baax day bëgg a ànd kaso kenn tey bés bi tey war naa yee képp ku nekk ci àlku képp ku nekk ci làmb képp kuy wax sportif war ngaa xalaat de lii mooy lii mooy këru dëkk ñu booloo nekk benn ñu booloo juboo ñu booloo nekk jàmm ay noonu ñu xuloo ñëpp nañ xam ne àddina bii du kër àdduna day jeex te Papa Gasso amul kenn xaar te yàlla nit ku baax la nit ku xam boppam la yal na ko yàlla xaari àjjana su ooyof ci kaw tey lii rek lii day yéeni alal oto du dara lii mooy dara ñu takk say loxo ay nit tiim la mënoo mënoo yu mënoo jooy mënoo dégg say doom tiim la mën a wax ak ñoom say waajur tiim la mën a say xarit yi la gën a rapproché mën a wax ak ñoom tey nga xam ne lii mooy dëgg nga xam ne képp sa xel ñu bari waaj bi laa dugg. peut être yàlla nekk seen loxo yi. Mhm. yàlla xanaa ajal na ñëpp. Mhm. dañuy gënaat na ñëpp permission bi gënaat na dama ko yàlla xanaa jël. ñaan ci àdduna bi jàmm ak réew mi jàmm. kay ma fekk la fii ci armeelu Yoff nga teewal sa euh, seen kilifa muy Gaston ndax yàgg na leen tëggal ci wàllu làmb yàgg na leen dimbali itam ci wàllu làmb. waaw loolu moom am na. man tey man dama ne ba tabax sama étage tabax sama kër dinaa la ma naan Gaston xaalis ma fay la ko wax dëgg yàlla. ok ok ci ban combat la ko. waaw bëri na son macha allah sama ah, sama sama bi moo tëgg lépp maa a ko tëgg. maa ko waa mujj moo ko tëgg. Mhm. waaw moo ko tëgg. kon père Gaston moom maanaam ah, génn daan na génn moo daan. génn maanaam làmb ñàkk na ko dëgg yàlla. que élément bu am doole si làmb. ñoom mhm. suqal làmb la. dëgg yàlla. ñoom mhm. suqal làmb. te yàlla yàlla na dana yëngu suñu ndax amoon ngeen ay relation yéen ñaar di déggante di gisante gu mel noonu. non moom. waaw gën a diggante mais nekk lu bëri quoi waaw man moom gën a diggante nii. Mhm. mais nekk loo xam ne lu bëri la quoi dëgg yàlla su ma soo am ñaar maanaam ñaar yoon la quoi. waaw mhm. li gën a ay at ñaar. Mhm. waaw li gën a at nag. mais man moom daal mooy doxee quoi. mais feebar bi dem nga seeti ko wala déggante ngeen ci. non dama seeti ko nag mais yàlla xam na. moo toll maa ngi koy ñaan maa ngi koy maa ngi koy ñaanal ñaanal paa bi paa parce que man dama ma habité ma dul fréquenté nii soo bëgguma ñu fa day xaw a dugg leneen quoi day dis quoi mhm. man te dama fréquenté nag a wañ mais du may tëb tëb rek ñoom nii day mhm. ma dul rek compagnie dul fi tool ay mbokkam def ñoo koy jige kon lépp sama may ñaan fu mu toll ñoo ko ñaanal yàlla mhm. waaw te ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xaa jëm dañ ngeen mos a dund lu la lu la marqué loo xam ne tey amaana boo koy wax sa yaram dina daw ah père ñu dund moom loolu nekk loo xam ne dañ wax quoi mais la am solo daal maa ngi koy yàlla daal. mbooloo mhm. yómbani bi am na ko yàlla yërëm ak naa leen daal mooy jub na ko. jub waaw. man dafa tëgg na ba fu ma toll nii ba nu mu génnaaw dina bàyyi fi mosuma defee dërëm. ndeysaan. loolu mën naa ko seetal yàlla. Mhm. mosuma defee dërëm. ak rafet bi xam naa boo xam ne xam naa lépp comment mosal lii si mooy galaa bi. galaa ba. mooy njëkk a fay vingt waaw waaw dëgg yàlla. Mhm. dëgg yàlla macha allah quoi. Kalaaf mooy ba nga bokkoon ca Tafatin ak Lac de Guiers. waaw ok waaw yëg ak Yékini Senior. mu jox ma Balla Diouf. Mhm. maanaam sama combat ginnaaw gi ma ko dëgg macha allah. de mosul man ah man boog man. Mhm. sama ko laa xam def sama mosuma defee dërëm. ndeysaan bu dee sa bàmmeel dëgg rek la nekk yàlla. defee dërëm. waaw. alors nitu verdict bi nekkoon tax na bari doon xalaat ni liggéey ak dafa jafe ndax dafa dëggu ndax yow gisoon nga loolu ci moom. xam nga ñaare waxee ko naqari rek di dëgg. parce que maanaam nit ñi moom. soo nooyee rek ñu def lañ nem te ñu waaw te liggéey moom dafa lay fa mhm. liggéey jotee dañuy liggéey. liggéey laa da def te dañuy ne contrat lu mu laaj ngay def. moom itam lu ko war mhm. mhm. tam mhm. da koy def te da koy def itam lu bëgg def sax da koy def waaw la promoteur yi war a jàngee ci moom waaw lu ma jàngee ci moom mooy xam nga Père Gaston rayukaay la quoi parce que benn moom dox lu mënul moom xam naa si moom borom kàddu la lu la wax dee koy man dama laax ci moom di jàll kay dox sax bu ma xam doxul soo waxante yi ñaar a mhm. da koy def ku dëgg la woon dama mhm. fii am na promoteur bi waaw mais dama la mais moom mhm. la waxante da koy def la waxante yow da koy jël si kàddu suñu borom sa fii dans kàddu mais daal la nit ñi sàmm la nit ñi waxee nit ñaanal yàlla xam ne jàmbaar liggéeykat ah ñu koy jaale euh, Makan. waaw di jaale axlu lamb gépp di jaale Sénégal gépp. Mhm. xam ne Sénégal moo ñàkk. moo ñàkk ak lamb yi. Mhm. waaw di ko ñaanal yàlla yàlla nga xaajal. lan ngay wax Makan mi nga xam ne moo jël ndono li fi mu ne. waaw di ko wax ni na yokk muñ xam ne àdduna moom fi nekk il nga muñ ko ñaanal yàlla yàlla loo xam ne moo samp baaxam rek. incha allah léegi ba xam ndox mi dox na ko raw. Mhm. waaw jaajëf jërëjëf merci beaucoup. ok xaar naa la Abdou. waaw delloo ziar bu baax a baax. Mhm. tey ma fekk la ci ci entraînement Gaston bi. waaw. Mhm. Euh, suñu papa Gaston nga xam ne moo fi jàppale ëllu lamb di jàppale lamb tey moom moo fi jógee kon nag bu fi jógee li ñu war mhm. mooy ñu ñëw taxawu ko ñaanal ko yàlla yàlla mi nga xam ne maanaam ku ku ku texe moo la texel mhm. ku mucc moo la muccal ñu ñaanal ko yàlla mhm. euh, ma xale ko aljana yi a da nga jógee ba Grand Médine ñëw fi ci Yoff ngir teewee robam fu mel ne amul ngeen relation yéen ñaar waaw euh, relation moom képp kuy axlu lamb rek même boo boo xamul garçon bu la xamul yoo xam képp ku ku ku mës a dundee mën na ko la boo seqaloo moom teraanga moom seq na ko ngeen. voilà kon yàlla comme que ñu la ko yàlla ko dañ koy ñaanal yàlla rek. Mhm. Euh, fi mu jëm loolu. Mhm. bi nga yëgee ni euh, génn na àdduna démb naka nga ko ak ci lan la la fekkoon. ah métti na métti na trop métti na trop waaye comme que inna lam naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. bépp bakkan nga xam ne ñam na dund. dina ñoom doy te lu mën alayha faal léppay jeex voilà fii njëkk njëkk a njëkk a dem moo fi nekk rek mais incha allahu rabbi ñëppay dem dem kon nag wax dëgg yàlla képp ku ci yàlla dogale mhm. jóge fi rek li war mooy ñi nga xam ne ñooy say mbokk ñoom nga seqaloon mhm. mbirum àdduna ñëw taxaw la ñaanal la borom gunge la ba sa kër mhm. gu mujj après li des ñu bàyyi ko ci loxo noo gisee taxawaay bi gars yi am ci moom ba ci ëpp lu làmb parce que moom moo ko liggéey daal lu liggéey la lu mu liggéey la euh, ndax wax dëgg yàlla képp ku nekk ci làmb rek. Mhm. boo xamul boo xam bu la Gaston xamul yow xam nga ko. waxuma la sax da koy seq ak ñeneen ñoo xam ne maanaam du sax làmb. waaw mhm. ah, wax yàlla li mu fi bàyyi daal mu nga xam ne muy njabootam. yàlla teg leen ko ba ñu yeggali liggéey bi te moom ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana. Mhm. yàlla xare ko njëggal bu yaatoo yaatoo. incha allah jaajëf. waaw ñu ngi leen fay waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yoon bi di rafetlu di naqarlu tey lii di yàlla def tey suñu papa garçon bi génn àdduna ñu ni ko fi di ko denc am de di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne moom àjjana yàlla na ko borom bi téel boppam ndax garçon bi nga ko amoon comportement tey

waaj ndax bis bi ñëpp koy am ku yaakaar ne yow yaa fi ne nax sa ndax bis bi na ñëpp ne ko ndax dee ko yàlla na ko yàlla xare tey boo dee xool ñi ñàkk tey bu ñëwee bu nit faatoo boo gisee mbooloo mi ñeent fukki nit rak faal ñor tey bu ñu xoolee gëru ëpp lu mille lu mille kooku loolu sant yàlla yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla xare àjjana di ko jaali mbokkam yëpp tey la am yal na ko yàlla a a ñàkk nag la rek yàlla mooy xool koo nekk ku matal di ngay dem yal na ko xare àjjana yal na ko yàlla ci doow feeku Seydina Mohamed